waaw bu bu bu kenn gaa yëpp ngi noonu tey nag tey nag moom tey nag moom dañoo am invité bu garaw lañu am tey <laughs> invité bu garaaw lañu am tey yéen a ma gën a xam acca gaa yi ñu kar ko léegi gaa yëpp ngi nii sur place